thank you Lopez gaale bi laa mujjee coachal sama yaay xam ci décoration yi laa nekk nii fleur yi bu naasul rek ngeen kii ko quoi si ça. pardon. Comment vous allez? Tranquille. Thank you. Oui, ça va très bien. Yeah, ça va dafa neex. Ah bon? Ah ouais. Merci. Euh, fait da fekk juste ma taxaw ci kër gi ma mujjee tabaxal sama yaay la. gis nga ci décoration yi laa nekk nii. c'est très joli. Ah, ah bon ah ouais. rafet na trop. waaw gis nga iPhone X6 laa yor nii sax. ah bon <laughs> ah oui. ok mooy loolu mais est-ce que mën naa am say coordonnées après ñu gën a ñu gën a kii. avec plaisir vas daf ma daf ma daaneel. ok ah ouais. waaye 64 giga la nag si. <laughs> ak ak euh, kii appareil photo day portrait sax. Ah euh, ça va naka ma. tranquille. yow mun na bàyyi fen. ah nga ni sa live yëpp danga ko bëgg a jàppe ay fen quoi même boo rusul nit ñi dox nga rusul yor bi tamit ah gis nga kii lépp lu mu la wax day fen de un tànk mbiri métti xam nga lu koy métti seen zinc kër yi moo daloon ci tànk yi. <laughs> waaw eh, bu ko gëm de. Eh, bu reetaan yow tamit danga koy rusloo. non c'est juste que <laughs> pour en beneen bi ci des yaayam day jaay yabooy quoi yaayam mooy meex yàpp. oui ci weeru koor nag lañ nekk quoi sinon bon moo wax leneen. waxul yow booy xam nga li la may chance sama tànk bi ah, douleur bi wuy ma. oh arrête tu te tais noppi yow la booy fen bu la ba ñu noppi lay wax doo am ngor nga noppi. lan moo fi jàngee nekk fii di taal sa bopp et tout. waaw jeex ñun ñëpp xam nañ sa yaay. yow ku réew nga de. <laughs> tudd sama yaay dégg nga. noppi ma dañ may doon. waaw ku réew <laughs> what's up man naw nag. yaa nga nekk ji gars yi ñu ngi lay waxtaanee. Hmm, mais qu'est-ce qu'il y a baay. Eh, doxal rek. Ah. Hmm. waaw bro. yeah how are you. yeah I'm very fine ah. yeah yeah yeah xoolal te pourtant moom laa doon maay nii daa génne gaala bon bi gaala bi damay dox ñu woo ko ma si loolu daf ma metti baay eh 24 heures c' est trop waaye dans deux heures de temps ko liquide ko. yee. naa ko coché. yee. Badiane lan la Badiane mbarka mi waaw dugg ci biir di sangu mu ñëw fekk ma fi di ma tëya di ma def lu noo xam ne je ne sais pas xaw ma waaw kay voilà xam nga yow ya booy yow booy bi xale la quoi na nga ko teg yow noppi la amoo dara looy wax Ousmane xew laa bëgg xam dama dugg ci biir di sangu mhm. xam nga mu fekk ma fa di ma siif def yoo xam ne moom man xaw ma Badiane temps yëpp gis naa ko mu lay nga booy nga nga ko jéem a cokkaas baal boobu ngay teg bët xale la yow nag mbaaka ah. bett nga ma yow ndekete ndox mu sedd muy rey màtt nga. noonu de bàjja Mati Ousmane moo fekk may xës duus. yow fan yëpp ma di la solo robu aboka ah ñii de bu seen yaay jóge marché dinaa ko ko wax. doomam yi nga xam ne ci bakkanam bi la leen teg buggul dara lu leen naqari doomam ji dugg ci biir duus bi nga di ko nga di ko rogo jeeru jëlal siwo bi te nga génn génnal duus bi jëlal siwo bi nga dem ci nga dem ci bitti. mooy génnal fii ah. xaw ma lii mbarka yow laay waxal génneel siwo bi mbarka romb ma génnal génnal eh ah. sa jooy seytaane yooyu man bu ma tojal de li ma tojle rek jooy doy na si amul dëj booy wala tamit ah. yow nag xam nga lu ma yëg bàyyi jaambur bi sa yoon ci moom lan la bàyyi tamit. Ah, lan la quoi da nga bàyyi jël si man exemple oh. jàllal nga yóbbu. waaw tonton xam nga lan la man daal sama xol moytu may jàpp lekk di ko këpp saa bu ñu dogootee bu desatee man mën naa ko sax maye sax. yow yaa ñuy waar yaa ñuy wax lu ñuy def ah xam nga lu ma lay yëgal rombal ni yaa sa ñam bi dem tuuri ji ko te nga na ñuy jooy ci kaw. yabaate ma toog bu la tuur ko doo ko tuur. bu ma neexee maye bu ah. ma neexee ma tuur ko te ma tuur li lii waaye. fii daal naa ngi lii de tànk bi ñu mal ko ji du ko bàyyi. conférence balaa jëm na yaa ngi dégg bundu kër gi na nga ko tëj na nga ko ubbi mu ne nga am nag est-ce que dégg nga ma te ku fi ñëw di ma seet dem naa conférence ba da nga gaaw nag xale bi jooy may ko mu lekk. da ko war a dàq noppalu. du xalaat du nee naa sóor kilo liibar na nga sóor liibar su boobaa li ngay jam ñaar rek jam fii te tey lay leer tey la laaj muy leer yow naan ñëw. wala ngay fir dox wala ngay jam ñaar waaye tey nga lépp dëkk la. waaw Ndiaye yow pare boo ba léegi. ah non pare naa. fompal ma parabrise rek. parabrise ah. mi kan moom da ko war a changé mu dafay sawar lool. balaa ñu gën a salaamaaleykum Ndiaye taxaw. waaw tata sañ-sañ nga de. ah ni ngay demee si kii yaa ngi na de. kon tonton si kanam ah? France ni dama tuurloo ay lekk ñii bu ñu xamoon lu yàlla wax ci tuur lekk nañ ko bàyyi da yàlla yi ko wéeg ngi féer eh, kenn soxna si yow ay lekk ngay tuuri ni waaw ay lekk tuur yi mburu a ngi si samay patron ñoom ma koy tuurloo ñoo ngi leen di dem mais est que lii xam nga lu si yàlla wax ak weeru koor yi am na ñoo xam ne noonu soxla li mën nga dem foofu jox leen ko ma paa nga koy tuuri yàlla dafa ne kulu washrabu wala tusifu lekk leen naan leen mais bu leen yàq te li ngay def ni si yàq la bokk ñi la koy defloo yow tey jii magum jëmm nga bañal lii baaxul la bul ko di def. déggoo li mu wax nee na boo ndogoo ci kaw mu wàcc ci suuf ndogu boo ndogoo ci suuf mu yéeg ci kaw ndogu mbaarkaa ngi noonu dem moom la yóbbul ndogu. Ah, temps métti xam deux voies mais na ay oto yu yaa ko def dangaa mel ni ko sangoo ca ngaayu jàmbur tri yokkaloog nga tër si démb ci guddi sama yaay dee ba bàyyi maag benn càmmiñ bi mu la jël ma fi yóbbu ma fi. ana Ousmane fii Ousmane dafay ku fi ne. yow ëppal nga de. yow nag mbarka nag doy nga waar ah. xam nga na la def tey ci suba Ousmane nekk ci duus bi fekk Ousmane muy sang mu di ko tatafu ma jékki-jékki rek dégg ay yuuxu wàcc defe na sax a euh, Basir la Ousmane taxaw. ma ne ko lu xew mu ne ma bàjjen kii dafa ma doon tatafu ci biir duus bi eh. kii nag ndox mu sedd muy rey màtt la xale yi ngay rogalaatu suñu waxee ñu naan góor ñee fekk yéen jigéen ñee dàq eh, rogalaatu fii waaw lu xew ci gaale bi. waaw mais lan la mbaa jàmm na da ngeen dem nelaw. ñii dañ doon nelaw. yéen ba max yéen a ko ba max. bu mais yow nga ne kan moo la ba max. yow mënoo wax dëgg. yow ñii doon nelaw nga ne ñoo la ba max. yow kii maa ngi tëdd mu tëdd sama côté nelaw la mën a ba maxee. nga bëgg a ñëw pour tas suñu kër. rawatina weeru ko vraiment xam ko soo fa jooyee. ba max ñoo ko ba max. ñoo ko ba ñoo ko ba max yow noo xamee ne ñoo ko ba max yow mi nelaw ba sa kanam gi mel ni kàmpu yaraxe dagana na ndar bàjjan mati histoire bi keneen ku la ko nettali ku dul Linus waxul dëgg tilwa moo jiital dans la vie dans ba max marka marka daanu waaw noo xamee yow ba ma koo gëntu